mbaxaw mi Barcelone doon bay démb ay toolam set na ci danañ ci dikk ci xibaar yi maanaam danañ dikk tamit ci li nga xam ni moo nekk marka yëglikaay bi ñëw ci ñaari entraîneur yi mu tëkkale est-ce que Carlo Ancelotti moromam la yaakaaruma ko ci kenn ku ñen ci match bi nga war a dawal gars yi information yi wértéwoor yéen a ngi ci Aladji Malick TV revue de presse bi ñu diglu yëgle bi sëñ Abdou Salama borom Salama Abdou Salama ah, borom jamono borom jàmm ji nga xam ni daanaka dafa ñëw uniquement ci askanu Sénégal ngir jàppale leen ci jafe-jafe yu bari yi nga xam ne mu ngi am ci réew mi moom nag ñaan yàlla dogal mu am lu mu ci xam ginnaaw ba mu jàngee daara ba ber daaray boppam loolee nag xam-xam bu mucc ayib moo koy maye mu ni ma alaaji Malick askan wi nag dama leen bëgg a jàppale ndax naxa bi dafa bari ci lépp loo xam ne jëm na ci liy xew ci jamono maanaam feebar bu ci mën doon yaakaar naa ne bu ngeen ci jëflantee bu fekkee lu mu man la dana ko ca def bu fekkentee ni tamit ngóora la moom daanaka da cee teg tànk mi ngi ciy am ay yoo xam ne loolee amul benn werante ni da koy da koy lijjanti ba mu toj koroj moom moomee mi ngi ci 78 433 78 78 beneen bi ci des mooy bu ngeen jokkoo moom ci li nga xam ne mooy ndoxum siti ak lépp loo xam ne jëm na ci xeetu bayre maanaam ak aaru aaruwaay maanaam képp koo xam ni bëgg na laa euh, di nag def naka sudul noonu maanaam liggéey bu jëm ci yow loolee day wëlbatiku dem ci moom loolee jàmbar la ci bu baax baax beneen bi ci des muy mbilum maanaam bayre naa ci léegi waaye a yaatal ndax fi mu jamono ji mu ci man di doon yaa ngi doxal say affaire dëgër loole ñàkk bare la doon waaye bayre bi dama koy gunge ak kaaraange loole lépp mboole seen ci lépp lu ngeen soxla mën ngeen a jokkoo moom moom kilifa ku sell ki jërëjëf sëriñ Abdou Salaam ak kilifa gi ku tedd ki ku sell ki nga xam ne lépp tawfeex ci moom ñu commencé nag xibaar yi nag bala ñoo dem ci revue ngeen ma ko rek ndax dama am image bu ma leen di proposer image bu neex image boo xam ne nag bu daw yaram la ci ki ne moo nekk Pedri ngeen gis ko noonu di xong ndopp moom nag démb du woon lam di match waaye nag yaakaar naa ne bu fekkoon man maay joxe lam ko teg ko ci loxo yi bu yàgg fekk na ni ki xam ne daanaka moo nekk moo nekk lam di match waaye nag nagonaye doxale ci digg terrain ba moo neex gisoo image boobee nekk image bu daw moom mii di moo yëkkati li nga xam ne mooy football kat bi gën a xarañ bi mu mérité woon yëkkati ko nag jox ko ki nga xam ne nag daanaka moo nekk kile di Rafinha mi doon raf rafi ca match boobee am na solo bu baax a baax mu nekk image bu rafet car macha allah Mundo Deportivo la dikk juróomi bal ci dara maanaam ab yan bi nga xam ne yan bu diis la bu gone Barcelone yi yan yum booy di seeni booy yaakaar naa ne gis ngeen match bi ak image yi nga xam ne moom yëglekaay bi andi ko gone yum booy yi nga xam ne yaakaar naa ne ATR maanaam dañoo sujjootu ci match boobee nga xam ne dugal jëloon ci benn but match ba nag métti na ci ñoom ñu gis taxawaay bi nga xam ne nag maanaam équipe bu Barça bi am na ko ci supporters yëpp ànd nañ ci waaye nag dikkat gu yees peq goo xam ni maanaam ki li nga xam ne mooy seenu milieu terrain ñëw na ko ci foofee di yangu ak ki nga xam ne tamit mooy Rafinha mi nga xam ne yaakaar naa ne mooy lom du match moom it tasaare na dëkk bi Robert Lewandowski kenn du moom ci boobee match Robert Lewandowski sax ci sport moo ñëw il est temps donte Olmo moo ñëwul golden boy euh, maanaam di Lamine Yamal tamit yaakaar naa ne boo du përte waaye ci kaw nag juróomi bal ci dara yi Barcelone ñëw démonstration de force Ligue des champions ñu gis ni Rafinha nag am na taxawaay bu ci am solo waaye nag ki li nga xam ni moo nekk international polonais bii di Robert Lewandowski ndekete yoo da doon nelaw waaye gone gi yeewu na commencé na sànce bu yees peq bi nga xam ne yaakaar naa ne fi mu toll nii ma ko bëgg a sànc fële ca Barcelone yangas na ba pare yaakaar naa ne li ci mooy teg ay birig li ay situation ci yëglekaay bii di sport dañuy dox ndànk nag dem fi la nga xam ne mooy merengue bu ma neexee laal bis bi tamit wala tata bi dem dugg foofee ca euh, locaux mbarka yëglikaay su ma demee vingt et une heure heure Espagne waaye dama koy andi tuuti dix neuf heures heure li nga xam ni moo nekk fii ci Sénégal match décisif bi Real Madrid wala dara ak Lille match ba nag ma ngay amee fële ca euh, réew mi naan ay tricolore réewum France waaye Atlético moom it am na match bu mu war a joué waaye yëglikaay bi daa yaatal ñaar ñi nga xam ne ñoom ñëpp comme Marca moom mi ngi nekk Madrid te ñaar équipe yi nga xamante ni ñu séddoo kenn ko dem tegal la ci taabalu leer waaye fàttewul nag maanaam facile victoire bu mucc ay bi nga xam ni gone Barcelone yi am nañ ko ca kaw yëglekaay ba ma ngi ko coppati coppati kii di Robert Lewandowski moom Marca yëglekaay yaatal ko juróomi bal ci dara Barcelone fi mu ni mi ngi taxawaw taxawaay boo xam ni bu ama am solo la ci biir kaay bi nga xam ne moo nekk Marca jekk kab nag di kile di Carlo Ancelotti moom it tey jii bari na mébét mu koy xaar mu baree bari ci li nga xam ne daanaka muy boobee mbir maanaam beneen yëglekaay boo xam ne danañ ci dikk léegi muy aas yëglekaay lu mu ñëw ci match bi nga xam ne Atlético dana ko fubal tey waaye nag ñëw na tamit ci Real Madrid ak équipe am eh, ci taxawaay bi nga xam ne war nañ koo mën a am ci eh, bile match Iniesta mu jël ay crampons maanaam gas ba mu xóot daal koy suul ni ma ko mën a dégge wala ni ngeen ko mën a dégge mooy Iniesta bàyyi na football jël na décision ne dootul laal bal ci li nga xam ne daanaka mooy match officiel loole nekk loo xam ne nag ñëpp war nañ ko mën a rendre espagnol di André inesta Inestano jërë ngeen jëf